mbokk yi ñuy tataan di ñu teewlu ni ñu leen ko diggee woon saa su nekk toppal leen lépp loo xam ne moom moo di ay xibaar yu tukkee ci biir réew mi moo xam ay xibaar yu tukkee ci biti réew mu mel ni coowal Mbathio Ndiaye Baye ma Baye Niass Ndiaye ak nañ leen ko diggee woon ngir lépp loo xam ne rek amaat nañu ko ci kaw xibaar ñu ñëw ànd ci ak yéen ginnaaw bu ñu waxee woon ci lu jëm ci mbirum Modou Xarañ Lo ak Boy Niang Om Zozo defaat na yeneen i révélation tudd ci ay borom yi daraja ay tur yoo xam ne yu siiw lañu ñu ràññee ci réewum Sénégal bi ci jiitu mu di oustaz Pape Pape Hann bu TFM nee na dafa takkoon Mbathio Ndiaye takku suuf takk gu toll ci ñaari at sëy ba demoon bay commencé neex Mbathio Ndiaye jële ci ëmb oustaz Pape Hann mënatul woon supporter ginnaaw si nag la coow judd ci seen biir ndax daf doon aaye mbàccoo col gu bon tuux naan comportement bi mu yoroon te neexu ko waaye ëmb bi ñëw dal di dox ci diggante bi mu am occasion ngir rocceeku ca boobu la sëy mu mel ni kàddu yi nga xam ni moom la Om Jojo wax dafay méngoo kàddu yi da Baye Baar waxoon ne mbàccoo laata ko Baye Niass Ndiaye doon takk mbàcco dañu ko doon takk-takk suuf mu ñëw ci moom di sàkku mu jàppale ko ci Baye Niass Ndiaye ngir mu takk ko ndax sonn na ci takk suuf yi li nga xam ne nag moom la Om Zozo wax ci diggante mbàcco ak oustaz Pape Hann dégguñu kenn ci ñoom ñaar daal di weddi waaye ñenn ñi ci ay commentaire nee nañ lu dëggu la ñeneen ña jàpp ne waxi Om Zozo moom jarul xëbal sa doom sax bu koy dóor ndax waxul lenn loo xam ne bees na fi wala luy boy suñuy nopp ndax kenn jàppewu ko moom nit rawatina li nga xam ne moom moo di ay kàddoom ñu koy war a gëm surtout ci jamono ji nga xam ne ci lañu toll mu doon loo xam ne lu doy la dëgg la am du dëgg ànd leen ak ñun way di topp suñu ay programme abonné activé seeni kolos ngir lépp loo xam ne yembaat na ci ñu ñëwaat ànd ak yéen ngir andi leen ci